dix-neuf heures tey nag ñu am mbégte nag di leen wane liggéeyu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamfar Baay Mourid diine bi nga xam ne euh, Serigne Mountakha Mbacké moo ko jox ndigal Serigne Cheikh Jëmbu Fall muy mu koy liggéey fii ci stade Mbacké kon xam naa ñi ngi ci euh, ñi nga xam ne ñooy ministre bu waay yi ñii ji xam naa dañ li ñuy laaj euh, liggéey bi ak situation liggéey bi ak nan lañ koy liggéey ak timit ndax nit ñaa ngi ñëw di leen jàppale ci liggéey bi euh, sëñ bi noo def Baye Fall maa ngi lay bu baax waaw dañ lay a baax waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam sant Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul di euh, jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall Baol Mouridina mooy leen di nuyu di leen ziar yéen waa Waarwi TV ci teew bi xay mu ngeen teew fii ngir bëgg a jël liggéeyu Cheikh Ibra Fall bi tasaare ci réew mi ak bitim réew kon nag ñi nga xam ñëw ni ñëw ni teew la ci waaru teew li ci tiiw yi ñoo leen di nuyu di leen di xam ne ñëw ngeen fu mat a ñëw gën a ngeen ko ku fi ñëwul rek ñoom ndax liggéey bi liggéey la boo xam ne dañ ko war a woon wax adduna eh, li muy roqee roqee ñu xam fi ci li nekk maa eh, Serigne Cheikh eh, Mountakha Mbacké dafa jox liggéey bi Serigne Cheikh Jëmb Fall muy fii xamu ñëpp xamoon nañ ne eh, terrain football moo fi nekkan boo xamante ne yàlla moo ko dencaloon Serigne Touba teg ko ci ay loxo yoo yu doyee di lañ ko mën a tudd tudde ndax barabu fowukaay la mu mel ne eh, sans borom eh, ab dencam kenn mënu koo xam waaye way way xarale yi wax ab denc bu bu bu beggandee a maanaam borom xel borom xel yu rëy yi duñ ko gis maanaam denc bu beggande borom xel yu rëy yi ko gis Ah, moo tax ñu saa borom denc ko nii maa teg ci loxo yoo xamante ne day yomba jot waaye bu dëgg fekk ñu def fi ay soto waaye ñu dindi kon sëñ ci mën a jot waaye ci eh, pow powukaay lañ ko defal nga xamante ne ku ci bëgg a jot mën cee jot ku ci suñu bëggee jot nag mu jaar ko ci maire bi jaar ko ci ñi nga xamante nooy notable yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi maanaam bañ jël eh, terrain bi jox ko sëriñ bi mu jox ko nag sëriñ Cheikh Jëmb ñu toj li fi nekk lépp dindi ko def fi miir bii fas yéene fee def nag ay jàngukaay maa ngi fiy jànge ak ñi leen di jàngal ñëpp fii la ñuy def fi néegam eh, sa borom def fi résidence Cheikh Al Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul maa def fi lépp loo xam ne aajo woon eh, eh, daara ko am loolu nag ñu ñaanal si taxaw bu yàgg bi ndax ñun lii ñu dundee suñu ko joxee rek mooy bëgg na noo dund Baye Fall du dunde lu ndigal kon suñu joxee ndigal rek noo ngi noo ngi dund ngeen ñëw na ci jamono ji doy waar ndax jamono ji nga ñëwee daa fekk bët sëb bi yàlla ji na ba tooy maanaam bët bu set bi nag nii liñ ci mooy dem ci àll ba ji yi waaye ndekete booba Serigne Touba mooy kéebu bi gën a tooy te boo ci jiyee sa boo ci jiyee sa ittee maanaam lam lay la ngay la góob mooy gën ka nga xamante daa béyi woon la muy góob kon ñun suñ suñ lépp gi nañ ko ci kéebam yi ñun nag ñu nekk ci wàllu bant ku jox fàllu fàllu mbar faal moo ñu moo ñu jiite maanaam pont yi ngeen gis ñu ne ko jubbanti dañ ko jubbanti waat ba mu jub ñu delloo ko ca terrain bi mu mën a liggéeyal sëñ ndax suñ ko bàyyi ci dëngaay bi du si ci mën a liggéeyaat ba day jëndiwaat te kon loolu day tax poosu sëñ bi du sakkanal poosu sëñ bi ah, bu ñu bu ñu décoffré ñu détaché ko maa dindi dénk yi dindi ponte ya tegale ko maa jubbantiwaat ponte delloowaat ko ci terrain loolu mooy mooy ñun li ñuy def su ngeen demee ci ñooñu la de def bu ñu leen bu ngeen leen leen dinañ leen ko wax waaye ñun lii mooy rek kon ñu leen di sant di leen gërëm di sant Waarwi TV di sant ñi ci kaw ba ci waaw axa kay dee liggéey bi liggéey bi am na ni boo fi ñëwoon ajji ma da ngay dafa nekk kenn Sénégal kenn gisu fi maanaam buntu Rafal yi nga xam ne dañ ko tuddee buntu kër ak benn ak buntu kër Mame Saliou Fall maanaam kenn wuute ko ñëpp a ko teewee maanaam ku fi néew rek am na ko la fi teewal maanaam tey ku ne xam ne liggéey alal xaalis koy def ak kattan ñi nga xëye am nañ kattan jël nañ seen kattan jox sëriñ bi ñi nga xam jël nañ am nañ ah, alal jël nañ seen alal jox sëriñ bi kon liggéey bi kattan la xaalis maanaam alal lañ ko mën a waxee kon ku am feer ñi ngi la koy laaj nga jox ko sëñ bi ngir yàlla ku am ciment ñi ngi la koy laaj nga jox ko sëñ bi ngir yàlla koo ñu defal ko sëñ bi ci liggéey bi maanaam lu waay def rek maanaam def ko ko fu ko mat a def kon kon woo na nañ góor ñi woo jigéen ñi mag woo mag ñi woo ndaw ñi woo biir réew woo bitim réew maanaam sëñ bi woo nañ ñëpp moom war na la bu wuy si wutit nga xam da nga am gàllankoor bu la wuy si maanaam sa war naa ñëw ndax fu waay nekk si bi nga fa nekkal kon lu waay lu waay waay lu waay am sëñ bi ko moom alali jàmm na soo ko yoralee euh, nit ba mu soxla ko su la ko laajee war na ko jox soo ko mënut a jox lépp war nga jox ko loolu kon kon kon laaj na seen alal laaj seen i kattan kon ni ngi ñu ngi ñu ngi sant sëriñ bu baax a baax maanaam di sant nag sëriñ Falilou Fall jëwriñu Cheikh Mamadou Falilou Fall maanaam mooy jëwriñu sëriñ Cheikh jëm di jëwriñu liggéey bii maa nekk ci kanam booleem ay baayam ak ay rakam ndax mooy moo moo moo mag ci buntu kër Cheikh Fall yëpp ci ci ci sët yi maa nekk fekk bàyyam nag sëñ Cheikh Ndiaye ak ñi nga xay ñoo ko fare suuf yëpp te maa tàmbale ko sëñ ak rak sëñ yëpp maanaam sëñ Fall bi mooy tey jii mooy seen jëwriñ ñoom ñëpp ndax moo fi nekkal ay ay rakam kon ñu ngi koy saabu bu dul fan te wéral jërëm bi mu am ci ndam mu àgg ak jàmm te leen seen bopp ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jaajëfal yéen ñi nag jërëjëf leen di siyaare bu baax di siyaare suñu teel jëm xalif général Baye Fall noo ngi ñaan sa borom yàggal ko fi te wéral ko moo ko jëwriñam yi nekk ci kër liggéey bi nag mi ngi dox bu baax a baax a baax Baye Fall am nañ ko seef lool moo li yaa ngi dox bu baax façon muy façon biir yëpp ngi dox liggéey bi tubaarkàlla noo ngi sant bu baax te ñaan sa borom dool ñu xéewal bu jàpp ndar mooy na ak wér bu a liggéey la sëñ bi ba léegi bëgg na ko lépp a ngi dox lépp a ñoo ngi ñaan sama borom doole xéewal yi ba mu baawaan mu li di ñoom bi mooy suñu soxla liggéey bi mooy suñu nawet mooy suñu noor mooy suñu lolli amuñu benn nekk waaw fasaa nañ ci jullit yëpp nag ci àdduna fasaa nañ leen ci liggéey bi ndax attan na ko kon ñoo ngi doolee sant bu baax di sant borom télé bi di sant sëriñ bi barka sëriñ bi Muxtaar barka bàyyi kelam sëriñ Fallou Fall digalal sëriñ Fallou Cheikh Fallou Fall nee na kel mi naan kel mi góor yàlla yi moom Cheikh Amadou Fallou bàyyi kelam sëriñ Fallou kel mi tooy lay faj ak dog-dog waaw tooy ak dog-dog Cheikh Modou Mbène Fall nee na képp ku naan mucc mucc moo gën tooy bu kelam daan ku naan doo dog doo tooy bu bar bu leen tooy tooy kel maa ngi nii tooy lay faj ak dag dog di ndigalal sëñ Fall moom Cheikh Modou Anta Fall jëwri ni Cheikh Rafal sëñ Cheikh Jëmb Fall liggéeyu Cheikh Rafal bii kel mi ñuy naan ca xel koom dañ daa dem ba ca àll ba xaaj ca kel ma dab góor yàlla ca waar wa ñu naan Cheikh Modou ja nee na képp ku naan ci tooy bàyyi tooy kelum sëñ Fallou Fall mii góor yàlla yi di ko joxe képp ku ko ñu naan da nga mucc say mucc àllëg ci doole Cheikh Rafal doo am benn toog toog doo am yenn fatiguement doo am yenn tooy tooy jaa ngi nii xel maa ngi nii bàyyi xelam sëñ Fallou ngi ci jawri ni Seex Faal sëñ see jëm jërëjëf Baye Fall jërëjëf Fatick yàgg te wér